këram laay dem jël avance am pour wan man déggoo ma ñu nañ piis ak reket nga tëtal ma kër gaamu ngay boole. sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gaamu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. duubal na fi kër gi yëpp ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi. Fils de Balla ci loo maa ngi na ma. yaa ngi jàmm. maa ngi ñoom bi moom. taa na la jógee Màkka. ku la ko jëlee Ibrahima Diop moo la ko jëlee. non non non. moo jógee Màkka mu jox ma ko. ah kon baax na loolu taw féex de. mais taa da nga taa entraîné woo de. man maay entraîné. di leeral boole. leeral non. ku may dox di leeral. taa da ngaa leer de. non dama rek. xaalis. waaw Kandji mooy sa patron. Ah, waaw loolu am na moom Kandji moo tax namm ma dara. barke sëñ moom lu ma nag mu jox ma ko moo tax lu ma namm dara daal Lamine. da nga da nga bokk ci ñi tëj saison bi parce que danga nga tey suba saison bi tëj nga bëri combat boo xamante ne da nga def feu et flamme mobiliser bëre bëre bu rëy daan avec la manière heure bi waroon fek nga bokk ci ñi am combat ngay daw adversaire ba ñëpp am combat lu xew. non dawuma sax bilaay dawuma adversaire bi may proposé ñoo ñoo kiiwagul rek ñoo arrangé wul. sa combat Quenche lañ njëkk a dox nga nga daw deuxième. ah daw kay. non dañ maa fay lu ma arrangé wul rek loolu la. Ah. sa combat euh, Garga 2 ñu fay la prix bu baax nga bañ. non bañu ma ne man lu ma bañ combat man bu gars yi d'accord rek pare mais daa combat bi daa am ñu d'accordul ak Garga 2 daa gëj a bëre. loolu dara loolu du wax loolu du wax. loolu problème daa gëj a bëre moo tax mais man bañu ma bëre moom. man bu doon mën a mun naa bëri moom mais daa ñu nekk sama ginnaaw te ñooñu dama leen jox cër dañu am wàll si man moom du tëb tëb di def dara te te ànduñu ma seeg ñoom waaw. mais gëj a bëre kese est-ce la. ah gëj a bëre kese est loolu argument waaw daa gëj a bëre quatre toog bëre woo ko te man boo bëri maa ngi munu nekk benn. dañoo jàpp ne da nga ko ci làmb wala lan. non fii ñun kenn rawul fii ñun ñëpp ay génération la kenn rawul suñu benn leer bi kay mooy daan Garga de. waaw non man Garga de daan ñu ko gën a tàng ku daan Général Malika góor a soog Garga de du la jaaxal. Garga de day bëri di xeex de. non ah mais garaawul mais su ma leen jàppee rek mu jeex. est-ce que ñeme nga Garga de yow. lu ma siy lu ma arrangé ma jël ko mais gars yi ma desee fay ba léegi. buñ la xaar eh, buñ kañ kañ bu d'accord Mouhamadou Ndiaye buñ d'accord man pare naa. li nga ma ne li nga mujjee bëre fay nañ la ñaaram waaw bu bu fekkee bu fekkoon bu fekkoon tey bu fekkee 5 millions la bëre fay nañ ko 10 millions bu dee bu dee 2 millions la bëre fay nañ ko 4 bu dee 3 millions la mujjee bëre fay nañ ko 6. xam nga combat boobu combat capital la. Issaoui Ngobrane Garga 2 boo ko jël day mu dox nga jël ko mais du ay combat wala palmarès moo ñu boole ma ne mooy bëre moom. ma ne li nga mujjee bëre góor a soog fay nañ la ñaaram pour Garga bu ñu yokkee ñu bëre. waaw da nga xeeb loolu waaw ndax man sama lamb yi ma séddee jaa métti li may dépensé sama lamb dafa métti yenn prix moo ma ko fayee loolu léegi dama ko def sama lamb. barki Serigne Touba Mbacké xam naa ne Garga 2 amul mbooloo man su ma ñëw fii gis nga fii nu ma koy def dama koy feesal ba mu fees jox leen li ngeen bëgg ambiance lan ngeen bëgg te dama koy def. neexal signature neexal te Garga 2 bu ñëwee danaan cell mic da ngay soxla ñu loolu. cell mic bi day àggul ci kéew bi de. oh ah la su ma duggee ci géew fu ma la ne yem fa ngay yem suñ duggee ci géew dama la ko tegal fii dana koy teg. léegi boo bëri woon ak Garga bu fekkee combat bu jubóo ci dégg nañ beneen promoteur buy dox sa combat ak doomu daam. woo guñ ma de wax guñ ma ko nag. man dégg naa ko te promoteur bu jënd na licence fii dem. waaw waaw mais woo guñ ma nag wax dëgg naa la guñ ma xam naa dinañ ma woo mais dégg mu si kenn nag wax guñ ma dëgg doomu daam. am góose bi. voilà boobu sax laa gën a bëgg. bu dee fii. comme que nee na nañ koo ragal. nañ ma ko jox. da lay dóor foog nga yi ñëpp ñëpp ñu ko ragal nañ ma ko jox rek. moo moomoon ko li mu mën a. li nga mën du xeex du bëre te fu ma ko jàpp daan ko. mosoo mosoo xeex ak moom. nga ne. mosoo pare pour xeex pour xeex ak doom. na combat bi taxaw na combat bi taxaw rek bu combat bi taxaw da ngeen gis su boobu ngeen di tëjee seen gémmiñ rek. moo ko jàppee fii boobaa ngeen tafati seen gémmiñ rek di laaj. eh Lamine ñooñu xam la moo leen di rey ñooñu. sama sama sama jëm moo leen rey te li nekk si biir man maa ko xam moo tax ku ma si jàppanteel da ngay xool foo tëdd rek mais boo yëpp du ma seen morom la muy parce que sëñ balaa moo gënoon neex ñu joxoon ay ñoom Yékini Junior ama neex dégg naa ñëw noonu te bëgg na bëgg combat lu ñu jox ama neex ngir yàlla wala muur ànda ma wane sama bopp su ñëw laa bëggoon sama morom dama si ñu may bëre sama morom yi. wala yaa jën kayra. maa loolu combat la jën si da la doon xaar si da bàyyi ndox mi dañoo ñu bëre ngir yàlla. waaw Siteu moom ñi ko doon xaar ñëpp moom jam jam wiiri na leen. voilà nañoo jël ñu bëri suñu biir ñun ay génération lañ toog na un an te ñun ñu ngi bëre nañ bëri suñu biir rek ñu may na xaalis moo gën muy jam wiiri nii rek boobaa ñun dina dem ba MN mu bëgg bëri ñun moom la ñu bëgg bëri ak moom. wax benn affaire nag ci ci ci ci jéen kayra de bu wax bëree daal du moom waaye bu jëf bëree fii ah duñ ko ci génne de. man damay wax di jëf yoo xam nga moom bu baax man damay neexal séantir ba mu neex ñëw lamb ji neexal ko ba mu neex bëree daal xam nga loolu sax si man jën du ko ñuy ban baraj dama koy ñaan rek jën jën moom lu ñu ma fay damay bërëg moom ah. barke yàlla jën lu ñu ma fay damay bërëg moom jën kii wax papam laay wax booy kayre na jël combat bi lu ñu ma fay damay bërëg moom jën un million sax bu ñu ma ko fay ma bërëg moom jën kay jën bu ñu ma fay damay bërëg moom un million billaay bu ñu ma fay damay bërëg moom loo mën ci jën lu ñu ma war a fay man lu ñu ma war a fay moom moom dañ ko yokkal ci kase moom jën dégg nga ma wax man li ñu ma war a fay dañ ko yokkal ci kase jën kay rek loolu kay promoteur yi dégg nañ ko Siteu Lac de Guiers ndax ndax combat. la man d' accord la du combat la. Lac de nee na moom parewul pour. non Lac de Guiers lu ko jël man bu doon may moom dama koy jël ndax mënul toog di xaar année balance wala xaar gars yi tàqali ko bu doon may moom dama koy jël moom wax dëgg ne yàlla ñoom ñaar combat la waaw franchement nag laa mais bu doon may moom dama koy jël ndax toog toog bëri bi amul benn sens yaa ngi entraîné addi duñ la xaar jël lu ko jël ak bëri moom. Ah, xam nga Siteu neexul dara temps yi moo tax. te Lac de Guiers ku pungali musul musul moom daal asuma yeneen mbëri. si te day door tànk di njiin de. Hmm. déglu ma la ku ay émission mënul dara mënul mënul dara. surtout du la jaaxal. te laa wax xale. waaw déglu ma xala ku ñu mënul mënul dara góobamu surtout dina la mënal dara. combat la ñoom ñaar combat la. bu réew bu réew koy jël rek jàpp ko. combat la. bu doon may Lac de Guiers jël bëre ak moom. am ci xaalis. xaalis donc. ñun bu ñu bëree ñun Lac de Guiers lañu ñaanal mu am tamit. am nga yaakaar ne bu ñu bëree. bu baax dégg lu ma la xam lan la ngeen ab pungal ñoo mënu si moom dara asuma ak Siteu combat la ñoom ñaar combat la. Ah. combat la. baax na bu bëree ñoom ñaar. xanaa Omar. Omar mu ngi fi mu ngi si mu ngi waaj. mu ngi waaj première saa bi. ay le premier. kii borom curuxu ñëwee ñu xam ne ñëw nañ de. le premier daan saa ji daan saa ji kii borom curuxu ngeen di bëri. bu bu ñëwee le premier nga xam na ñëw nañ ak doole. bu ñëwee fii ba Sadji tous une minute la leen may de. ah wax comédien lay rek boo ñàkk la mos a mbër temps. da jàppal na leen man xam mos a ko def ak keneen waaye defal leen. dégg nga. yéen may na leen temps. bii de du ah. bii de. du moom nga ñëw te boo la mel affaire bu bu ko Balla Gaye max moom dañuy bëree boo ñaar ah. bu ko Balla Gaye moom dañuy bëree. baax na la ñu yónni yàgg. naa ko taxal pour dañuy bëre par force dañuy bëre de amul sax ma dem da waaw jeex na loolu sa problème yow. waaw ngañ dem ba borom géejawaay mi ngi Espagne. doomu nday Aziz. doomu nday Aziz ñoom ah, ñoom Cheikh Abdou Modou Lamine maa leen di woo si combat bi defee woon na nag pour ma mais maa ngi sant jam production bu baax Lamine. waa géejawaay gis nga su may bëre ñu ne sama ginnaaw. waaw combat bi di ñëw nag waa Bayax maa leen woo di woo waa géejawaay fiñ mi Daaru ay seet déggoo waa Bayax ku si mel ni Salim Mbaye ñoom Sëñ Fallou waa Ngéwal maa leen woo keroog nag maa lay dégg Laurent di wax si man nga koy introsé Laurent kooku taxumaa jóg. Laurent nee na doo mbër. Liss Ndiago laa soxla moo kii ku daan. Laurent nee na doo mbër comédien. non maa ngi moom kan mooy comédien Lamine Lamine yow gis nga su may bëre ni may def stade bi. man waxuma ne moom moo. stade keroog ëppale wuñ ma supporter ah bolok yi nag Pa Mama Fall ñu ngi koy woo si combat bi di woo waa Darou Salaam ñëpp sama mbokk géwél yëpp maa leen di woo si làmb ji waa waa ñam Ousseyn Ndiaye waa sama gars ñam Mbaye Mboup di woo waa maa lay jaayee këram laay dem jël avance am pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak reket bi waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay booy sama yóbbante damaa bëgg mu yegg bu gàmmu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg-yàgg dañuy daje duubal na fi kër gi yëpp ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi